saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat royal ba diggante Modou Lo ak Ama Baldé bile combat ba nu ko taxawaleeg léegi suur naa sunu làmb ba xayma na ko mu toll ci fukki weer ak ñett boobee ba léegi bile aveniru combat dara leeragu ca Ama Baldé ndey mbili gi xamagul kañ lay sëgg ak Modou Lo le roi des arènes loo xamagul kañ lay teg couronam ba bile combat bëri nay interrogation kenn xamagul diggante Modou Lo ak kañ la ñuy sëgg du promoteur ba du supporter du amateur kenn ci ñoom ku xam bile combat la ñu koy amal bu dee promoteur ba Luc ko waroon ca bile combat def na ko ñaari mbëri ku ne mos na ba ñu matérialiser bi li combat bu dee ñaari mbër yi la leen waroon ci combat ba ñoom def nañu ko Ama Baldé nangu na Modou Lo mënu ko doon jox Modou yi nangu na Ama Baldé mënu ko daan jox manager ak promoteur waxtaan nañu ba déggoo ku ne jot sa avance waaye la téye combat ba ba léegi mooy li téye réew mi ba kenn mënut a dox say soxla mbas mee ndar kàpp combat royal boobee yëkkati ko ba ci kaw teg ci suuf waaye amateurs yi ak supporters yi la ñuy xaar ko ci huis mooy bile combat daal dàqu ñu tàqalikoo bu dee Gris Bordeaux président de l' association des en activité moom combat ba ko ci yéem mooy amal gañ ko nar amal ci arène nationale moom Gris Bordeaux bi le combat nationale dalul xelam la lëndamal xelam mooy gestion ba ak insécurité ba rax ca dolli ne laataa ñuy tabax bi le nationale ba ma gisee maquette ba ne site ba nu koy def adéquate fanu tànn bëgg ko faa def foofee rafetlu ko ñépp xam ne lamb sport bu noble la waaye dàq ko benn yoon le Don King de l'arène Gaston Mbengue moom it bëgg na huis boobee bu fekkee am na ay jiixi jaax mu ubbee ko moom ma ñu dippee le promoteur des grands événements la mu bëgg mooy démarrer huis ba daal di koy essayer ba xam diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers rax ca dolli ne pare naa it pour yóbbu fa Modou Anta ak Diène Kaïré moom Gaston Mbengue amul lu muy tiit ci huis bu ñu leen ne woon tey acca mu ne acca rax ca dolli ne man xam ndax lu mën a nekk la wala déet rax ca dolli a basé wu ci

ràññeeku woon lool ci bëre bi mënoon cee am lu nekk làmb amoon ci ñoom yaakaar far ñu mu jëlee la freiné fi mu nii mbër yooyee ci lancé seen carrière relancé waat ko ci la nekk ñetti mbër yi journal bi jukki mooy soose maane njaaxum ak sàngu ñaan yi la ñetti mbër tolloon nañ guddi yoo xam ne koo jox seen avance seen mbokk dootu ñu nelaw ñu toll benn jamono seen guddi daal metti lool waaye fi mu toll nii delluwaat buum ca mbooy mbooy ko journal ba binde sax mooy troisième dinosaure en quête d'une nouvelle renommée ne dañoo a fësalaat a jëlaat yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah